monsieur le ministre de l'intérieur maître Sidiki Kaba mu ngi ànd ak monsieur le ministre Seydou Guèye secrétaire général du gouvernement monsieur Issakha Diop ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement en charge des inondations monsieur Mamadou Saliou Sow ministre auprès du ministre de l'intérieur en charge de la protection civile euh, honorable député monsieur Ibrahima Baba Sall premier vice vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur Alassane Sall, Monsieur le préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Mokhtar Blondin Ndiaye, le sous-préfet des Almadies, Mouhamadou lamin Thiam, le général Tchaka Tchao, coordonnateur de la cellule interministérielle des opérations de lutte antiterroriste, le colonel Paye de la cellule de lutte antiterroriste, le colonel Ibrahima Diata, commandant en second de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Monsieur Abdourahman Ndiaye, inspecteur de l'administration centrale territoriale, Madame Ramatoulaye Dien Ndiaye, d'âge au ministère de l'Intérieur, Monsieur Mamadou Diokhane, directeur de l'administration territoriale, le commissaire central de Dakar El Cheikh Dramé, le commandant du groupe opérationnel de Dakar, Masserigne Faye, le conseiller technique religieux, M. Soïbou Kébé, les conseil technique du commissaire principal Safiatou Mbaye délégation bi ñu ko accueillir muy monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñu miin ko lool ci kër gi mu ngi ànd également avec le commissaire des parcelle Assainies de unité 15 le commissaire Mountakha Khouma ah, bu ñu demee aussi ci institution de la République tudd léegi Assemblée nationale waaye le haut conseil des collectivités territoriales les représentés par imam El Hadji Oumar Diène nga xam ne en même temps moom mooy président des imams et oulémas du Sénégal euh, bu ñu demee ci wàllu élus locaux yi monsieur le maire de la ville de Dakar monsieur Barthélémy Diaz mu ngi nii toog ànd ak les maires Aliou Tall le maire Mou Sacré-Cœur le maires Cheikh Gueye de Dieuppeul Derklé monsieur Aziz Mbaye maire de Fass Colobane ki leen dalal ci jotaay bi monsieur le maire de Yoff Seydina Issa Laye Samb mu fegoo ak monsieur le maire de Ngor monsieur Mama Gueye ak le maire de Cambérène El Hadji Doune Pathé Mbengue maire Ngor maire également